ñun nag waa plateforme Bay Sa War xamee ñu ci kuréel ga nga xam ne euh, dafay euh, euh, liggéey ci lépp la nga xam ne rek promotion wu savoir faire local ci àdduna wërngal këpp ñu gën ko xamee ci Afrique donc daanaka tey li ñu fi tax teew dafa bokk ci euh, événement bu mag a mag bi nga xam ne ci la ñu jëm muy la foire internationale des produits africains ñu gën ko xam ci FIPA muy regroupé nag euh, plus de trente euh, pays yi nga xam ne dañuy jóge fépp ci Afrique bi ñëw tey foire boobu tey dina permettre ñu liggéeykat yi ñu mën a wane li nga xam ne tey mooy li ñuy def nañu ay formation yu bëree bëri jagleel ko suñu ay membre ba tey euh, toll nañu fa nga xam ne tey seen produit fu ñu ko teg rek ñu ne ñii waa may membre bay sawaar lañ toll nañu fa nga xam ne tey suñu produit compétitif nañu à l'échelle internationale parce que tey boo yëkkatee produit euh, membre plateforme bay sawaar di nga xam ne kii jaar na ci formation di wax ne ñi nga xam ne amaguñu seeni stand nañu jóg jënd seen stand benn yoon te xam ne foire bi di nga ci jëlee xam-xam di nga ci jëlee carnet d'adresse di nga ci am ay formation mais aussi di nga ci commercialiser say produit parce que te képp xam xam ne rek euh, dafay liggéey bëgg na produit yi nga xam ne mi ngi koy defar ñu mën ko jaay fépp ci àdduna parce que bu ma nee àdduna rek la foire internationale des produits africains euh, événement ba nga xam ne la c'est l'Afrique en miniature